dal leen ak jàmm seen seen bii di seen njëriñ TV Sénégal kiñ dippee Daouda Ba ñu gën koo xam ci Mbàkke ruuxu di ak foo prophète maanaam kuy oote yenant te xaajul ba di ko na kookee ginnaaw bañ ko tegee woon loxo ci réew mii di Sénégal en 2021 démb lay soog a daal di jàkkaarloog yoon ngir ñu daal di koy àtte ci ñaawteef yi mu daan amal ginnaaw ba muy ootewu ak foo prophète ci réew mii di Sénégal si mbir moomee kiñ dippee Daouda Ba ñu gën koo xam ci turu Mbàkke Ruuxu si dëkk bi ñu dippee Saare Ngañ te mu nekk ca Kolda foofee la nekkoon di ootewu ne moom akub yënant la bi nga xam ne ne yàlla moom moo ko yónni si li ni mel nag kookee di Daawda Ba ñu gën koo xam ci Mbàkke Ruuxu amoon na ay taalibe yu bëri nga xam ne ne commencé woon nañ di bàyyeekoo ci réewu Sénégal di ko fekk foofee ñu dippee Saare Ngañ di dëkk ba mu nekk ca Kolda ci diine boobee ki ñu dippee Mbàkke Ruuxu doon oote ci réew mii di Sénégal da doon jël arxuraan bi di ko tekki ci pël ci noonee lañ daan jullee waaye tamit ñu jege woon kookee di mbàkki ruuxu te gëmuñu ko woon foofee ñu dippee saari ngañ ñi nga xam ne ne ay taalibe lañ woon jëm ci kiñ dippee mbàkki ruuxu dañ doon dal si ñi nga xam ne gëmuñ ko woon ba sax di ci rey ay nit waaye tamit yemul foofee rek waaye tamit kookee ñu dippee mbàkki ruuxu ñu jiite woon dañ doon takk ay xale yi nga xam ne ne dañuy am dix ans jàpp treize ans di sëy ak ñooñee ci circonstances yi ni sax lañ jàppee woon kookee ñu dippee Mbàkke Ruuxu ndax dañ ko fekkoon muy daal di takk ki ñu dippee Awa Mahaani Diallo di xale bi nga xam ne ne treize ans la am si li ni mel lañ ko jàppee woon na en deux mille vingt et daal di koy tëj ci kaso bi. démb nag ginnaaw bañ koy àttee procureur de la république bi daa saaku ñu daal di koy toppee liñ dippee pédophilie séquestration viol daal di saaku ñu daal di koy tëj lu tollook fukki atu kaso ndax ne kookee di Daouda Ba loolu lee rek la daal di mérité si mbir moomee nag juge bi daal dinay dàq procès bi ba le 18 juillet 2024 bi ñu jëm ne si li ni mel la ñuy soog a àttee kookee ñu dippee Daouda Ba ci réew mi di Sénégal